li nga gisal li nga mën a gis sa biti.
te am na doomu aadama lu mu mënul gis.
te ci doomu aadama bitim bitim rek am na ci lu mënul a gis.
noonu la yàlla di gise sa bitti bi lépp di gise sa biir bi yàlla nag lépp moom noonu la gis sa biti yëpp sa biir yëpp it noonu la koy gis.
loo ko dikke xam na ko loo dikkee yàlla xam na.
nga jàpp ne moom ngay nga déeyaaleel jàpp ni moom ngay deeyaalee.
nga bàyyi adduna ca gannaaw nga bàyyi àdduna ca gannaaw.
ne reg ne reg taxaw ngir rek ba taxaw.
def sa liqaam def sa li xaar.
fas yéene ne yaa ngi jooxe sa farata sa digganteeg sa borom fas yéene yaa ngi joxe sa farata. sa digganteeg sa borom.
ni ki ngeen jànge xunuut la ca nekk ñu ngi leen jàngi xunóot la ca nekk.
allahuma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa natubu alayka wa natawakkalu alayka wa naxnau laka wa naxnau wa natruku man yakfuruka allahuma iyaka nacbudu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nasca wa naxfadu narju rahmataka wa naxaafu cadabaka aljidda inna cadabaka bilkafirina mulxaqun mulxiqun nga taxawee ko nga noonu taxawee ko noonu.
góor gi koy wax de mais góor gi wax góor seen góor gi mbay ba tey de.
nga yëkkati sa loxo Bu ko mu defee tolloog say ngay càmm say loxo.
say mbagg si ba mu toll say mbagg.
sa- say nopp say ba mu toll say nopp.
am nañu wax leneen am na ñu wax leneen.
nga ne nga wax allahu akbar nga wax allahu akbar.
joo xam ne yoo xam ne jii.
sa xol dana ca yëge ne sa xol dana ci yëgee ni.
su fekkoon ne garab la su fekkoon ne garab la.
am picc dal am ja picc daal ca.
allahu akbar allahu jooju akbar jooju.
kii tànge ja suñu tàngee.
Dana ko tax a naaw.
dana ko tax a tax a picc ba naaw ci kaw garab.
ba nga ne regg taxaw mais ba nga ne rog taxaw nga jàng nga fatiha jàng fàtte.
ba mu nopp ba mu not nga teg cew saar nga teg ca saar.
taxaw taxaw
ba mu wóor la ne taxaw ba mu wóor la ne taxaw nga.
nga yul nga yul teg sa jë sa bakkan ci suuf teg sa bakkan ci suuf.
xatta tatma inna sajidan ba nga xam ne mii kat dal nga boo xam ni yëngal sujjóot jóge ca taxaw nga jóge ca taxaw xatta tastawiya qaiman ba nga xam ni yem te ne nga tem taxaw yemu kepp ba ñaari rakkay suba mu noppi noonu suba noonu ñetti rakkay timis ñetti rakkay noonu timis noonu ñeenti rakkay ñetti timis rakkay noonu tisbaar noonu nga jullee ko nga noonu jullee ko noonu jafe na jafe na waaye nga def cel sa kem waaye talaal nga def xattan ca sa kemtilaayal kàttan téere bu gàtt bi ñuy wax laf nee yi téere bu gàtt bi wax lax dëri yu nee na julli ak leer a ngi ci koo xam ne mais julli ak leer nga ci koo xam ni ji ña ragal yàlla rek koy am ña ragal yàlla rek koy am yal nañ ci yàlla yàlla boole nu yàlla boole ci ñi ragal yàlla su amiin ko defee nga xam farata bu ko yi defee nga xam faratee julli su ko defee nga jàpp jàpp nga xam ko noonu ne jàppit nga xam ko noonu tiim nga xam ko noonu nga xamee ko noonu xam alal lan lay war a mat door a zakat li war leen a alal zakat bi la war yàlla a jox nga xam lu muy mat war a mat a def asaka ak jur yi lan lañ ci ak zakat jur yi lan lañ ci def asaka ak yi nga xam ne zakat ak waru yi nga ci xam ne asaka waru ci ak mbay yi nga xam ne
ak mbay yi nga xam ne yii su dem su fekkee ne mbayum roose bu la fekkee mbay mi war a sell asaka am na mu war a day am na asaka am na mu war a day asaka am na nu mu war a day su fekkee ne taw la su fekkee ndoxum taw la nga xam asaka nga yi na mu xam war asaka nu mu war a day ñaata xar ngay am ñaata xar ngay am asaka xa- war ca asaka door caawaar ñaata gileem ngay am ñaata gëléem ngay am ñaata nag ngay ñaata mel am ngay am asaka war asaka ca door caawaar ba loolu sotti ba yooyu sotti soo mënee yoonu makka nag boo mënee yoonu màkk nag ndegam man nga ko dara ndagam mën nga ko nga dem ca nga dem walillahi ala nnaasi xajju lbayti man istataa ilayhi sabilan sabilan yaana lool mais sabila nga suñu borom wax yaana lool sabilan du billet avion képp mais sabila kat du mooy nga am bi avion képp kat du am yóbbal boo yóbbu ak boo dellu du am yóbbal boo yóbboo boo dellu si rek kat sabilan sabila amal paas bu la lew amal paas bu la lew sabilan sabila amal wér amalu wér sabilan sabila xamal farata yi amal paratee sabilan sabila soo amul xam-xam soo amul xam-xam nga ànd ak nga ànd ak ku xam ku am xam-xam ku lay ku tegtal lay kette sabilan sabila nga far say bor nga far nga fay say bor say bor sabilan sabila nga diisoog ñi nga ameel bor suñ ñi nga amee li bor ba ñu may ba la ñu may la sabilan sabilan nga wàcc fi dund yow ci dund bu doy sëkk bu doy sëkk sabilan sabilan nga sàng sa njaboot sàng sa njaboot sabilan sabilan nga jox leen lu ñu nga mën a jox téye leen lu ñu mën a téye ba nga mën a ba téye nga mën a dem ba dellu
loolu moo loolu mooy kànd gi ñu war a ànd ak yéen yii munu wax mooy ànd kànd gi ñu war a àndi ak ñun ñëpp tegtal leen yoon woo xam mooy ne ñu teg tel yoon woo xam ne yii soo lëgee ñun ak yéen ne soo liggéey nag ñoom ak ñoom ñëpp ca kanamu yàlla ca kanamu yàlla
xuloo du fa am ba kenn ku nekk di rëcc pour war a dellu si xuloo du fa am ba ku ne rëcc pour war ci si jàddi yal nañu yàlla musal ci yal loolu na yàlla musal ci loolu id tabarra alladina tabacuu min alladina tubicuu wa ra'aw alcadaaba wa taqattacat bihim alasbaabu wa qaala alladina tabacuu law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'uu minna kadalika yurihum allahu acmalahum xasaratin yal nañ ci yàlla musal yal na yàlla musal ci aaya jooju te it day am ëllëg
te tariqa bi nañu fabu aat ñu fonk ko bu baax te tarixa bi nan fa bu waat fonk bu baax nañu dundal jàkkañ ci yeb di wasifa yi nan dundal jàkkay ci di ci dem di wasifa yi waaye aju ci sëriñ waaye aju ci sëriñ mu doy la mu doy la nga ne moom a doy nga ni mooma doy sànku la sànku la tegu ci wu yoon tegu ci yoon wu yàlla gërëm wu yàlla gërëm teg la ci yoon teg la ca yoon wu yàlla wu gërëm yàlla gërëm nga dem ba mu nga yàgg dem ba mu yàgg nga ne kii doyatuma nga di ci doyatuma wala li ma teg diis la wala ma teg diis la lu ñu la teg lu ñu la teg nga woyofal nga woyofal lu mu indi lu mu indi nga woyofal nga woyofal daa dem di nga dem ba ñàkk dërëmu ba wurus ñàkk dërëm wur weccee ko wecce ko
similoo similoo te du la te jëriñ du la dara jëriñ dara
ñun ñi nga xam ne dañu tënku ci Seydil Hadj Malick ñun ñi nga xam ne dañoo tëgg Seydi Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu nañu ñeme mbooloo jàpp nan ñu me mbooloom jàkk nañu ñeme xadara yi nan ñu me xadara wali nañu ñeme nan jàng ñu salaat me jàng salaatu fatih nañu ñeme nan jàng ñu alquran me jàng alquran nañu ñeme boole xol nan ñu me boole suñuy xol nañu yéeneente jàmm nanu yéenente jàmm nañu bëggante nanu bëggante nañu nanu suturaalante suturaalante nañu jàppante nanu jàppante nañu dimbalante nanu dimbalante ci dëgg ci dëgg ak wax ko ak wax ko wattu dimbalante wattu dimbalante ci ci def def bakkaar bàkkaar ak tooñ yàlla.
ak tooñ yàlla
yal nañ ci yàlla dimbale yàlla yàlla dimbali dimbali ah kër gi nag yomb na yomb goo xam ne mais kër gi nag yomb na yomb nga xam ne kii ndoxum géej la ndoxum géej la
dang ci da ngay mar da ngay mar
topp ci rek topp rek ndoxum géej bi di naan di naan sa mar du faju sa mar du faju te lor la lay te jël loolu lay jural yal nañ ci yàlla musal.
yàlla yàlla musal musal leen wala mu tey lool wala boog mu teey lool neex lool neex lool kaasu meew bu kaasu tàng meew bu tàng ñu suukar ñu ko suukar ko def ca wani def ci suukar wari te mbël ci morso galaas te mbël te morso galaat bu ko seral bu ko seral nga di ko topp nga di ko topp di naan di naan di dem di dem ci xamuloo ne te xamuloo am na summa fi desal mais xam nga ne tooke moo nekk ci taatu kii bi ba mu gaañ la nga di ko naan ba naanaale ko mu gaañ gis naa ne lu bare bari ci wàllu kër gi léegi taalibe yu bare bari mais ñu ngi loru te yëguñu ko te waxuma ko ngir propagande mais gis nañu bare bare bari ci wàllu kër ci taal bi ñu fi yaakaar ni ñu ngi loru bu baax te wax ku tëj ñu propagande dama ko wax ala wajhi nasihati ak bëggal sama bopp jàmm bëggal leen jàmm mais daf ko wax rek ci anamu laayante biir ak bëggal boppam jàmm bëggal lu ko ni mu ko bëggale boppam waaye lenn nag ci taalibe yi dem na noog ñun ba ñemeetuñu leen wax dëgg waaye leen nag ci taalibe yi dem nañoo ak ñoom ba ñëwee ci leen wax dëgg ndax boo xamee ni da nga ko yaakaar ndax soo xam ne da nga ko yaakaar
su la defaralee sëb sëy soo la defaree leen sëb sëy nga dem wàcc ko fi wuti nga keneen dem wacc ko wuti keneen meneen matal bu gën a woyof ca kaw masala moo ko laaj su la ca ubbee ca la yàlla bëgg nga wuti keneen masala moo ko laaj bu la ci bu la ci ubbee ci la yàlla bëgg a wut keneen ko la tonnel ci kaw dana mel ne le Seydi Aboubacar radiallahu taala anhu tontu woon benn waay dana mel ni Seydi Abubakar Si radiyallahu taala anhu tontu woon benn waay mu ne ko su fekkee ne mu ne ko bu fekkee ne diw mi fi ñëwoon démb diw bu fi ñëwoon démb diwa diw doomu diw doomu diw Babacar mi mu fekkoon Baabakar mi fi fekkoon di Babacar di Baabakar di doomu Alaaji doomu Maalik di doomu Alaaji Maalik boobu sëy boobu sëñ ma nekk démb rek dara du ko mën a dara du ko mën a defar lu dul baax de lu sëy.
baax de sëñ yi tax xaw ma nag xaw ma nag ki nga doon waxal ki démb nga doon wax ak démb te muy te Babacar muy Babacar dafa di jinne te di jinne yow mi doon waxal yow mi man doon wax ak moom ngay jinne ngay jinne wala may leneen wala may leneen Ngay ngay leneen, ngay leneen.
leneen waaye ba yow jëm jii moo fi ñoon wax ma démb nekk ni nga wàcce naw si lay dee si tey day may Babacar ma ko def lay sëy bi kat dootu ko nekk ci lu baax de sëy
dem na ba ci azkar yi ñee dem yooyu loolu dem na ba ci sikkar yi
nose boo xam ne bii Cheikh na Tijaan yi yonente bee ko nose teg ko ci loxoom.
ñett boo xam ne bii yonente bee ko nose sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci loxoom.
ñun ñoo sonal suñu bopp rek.
mais noonu noo sol suñu bopp rek ñetti téeméeri yonent ñetti téeméeri Cheikh na Tijaan yi junni wecci wu ko.
mais ñetti téeméeri Cheikh Ahmad Tidiane yii mu nosu junni weccu dàq asal wecci wu.
mais
asal junni wecci.
asal ne junni weccu bari na fukki junni yu mu gën.
bari na fukki junni yu mu gën billahi mais billahi wallahi wallahi tallahi.
tallahi
ndax yonent bee ko noseel noonu boppam teg ko ci ndax loxoom.
ñetti téeméeri cheikh yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nosel boppam teg ko ci loxol cheikh bu ñu defee ne tariqa bi Cheikh na Tijaan yi moo ko préparé préparé bu déwén boppam.
tarixa bi cheikh a ko préparel boppam de déedéet daf ko jot ci ndigal lu wér daf ko jot ci ndigal lu wér mu bàyyi ko ci sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi ko ci sallallahu alayhi wa sallam defe ko nii defe ko nii defe ko defe nii ko nii defe ko nii defe ko nii ca wérdu ba ca werdu ba ca wobi fa ca wa wasifa ba ca jawhara ba ca jawara ba ba mu sotti ba mu sotti
moo tax am na benn jarbaatu Seydi El Hadj Malick radiallahu mais moo tax taala am na benn jëlbaatu Seydil Haaji Mali radiallahu taala anhu bu ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga may ma tayyu bu ñëw ci Seydil Haaji góor gi dana bëgg a may ma tëyu góor gi danga ko demal nga bari salaatul fatiha maa ngi ko demal bari loo jàng salaat fatiha mu dem ba mu yàgg mu dellu si mu dem ba mu yàgg mu dëj mu gëddaat ko Maodo gëddaat ba muy ñett ko ba mu ñetti yoon mu ne ko demal def li ma la wax mu ne ko góor gi ni ko demal def li ma la wax salaatul fatiha dana ko jàng ba mu mel ne sax jàngatuma ko ndax bari mais salaatu fatiha man mi danaa koy jàng di koy jàng ba mel ni jàngatuma ko ndax bari du ma koy jàng assayfiyu wa salaatul fatihi yugniyaani an jamii al azkaar nee na say fiiw ak salaatu fatiha doy nañu walis lépp lu dul ñoom ci lu jàmm bëgg jëriñ ci wàllu adduna ba àllax su fekkee ne sell na mais bu fekkee rek sell nañu su fekkee ne sellal nga wér gu su fekkee ni sellal nga wér bi gëm ko gëm ko def ko niñ ko wax def ko ni ko wax al murid boo xam ne bii dafay jàng wér dem duñ ko sant ne taalibe boo xam ne bii day jàng wér dem luñ ko sant dafay mel ne janax joo xam ne ji wund daf ko dàq day mel ni janax ju wundu dàq mu dugg ci mpax mu dugg ci pax wund wa toog ca wundu buntu wa pax toog ca buntu pax ba di ko tëru tëral kawaram yëpp te kawar yëpp nooy sax doon loolu soo dootu ko def lanay nekk ci xelam lana nekk ci xalaatam janax janax janax jigéen do janax ji fas jën ba mu fàdd ba mu fàdd képp kat boobu zikkar mais boobu sikkat moo di zikrul madadi mooy sikkurul madadi waaye laajunu zikrul adadi waaye la sikkurul adadi lim bu bari rek te teewlu woo laajuñu naa ko def jóg fi naa ko de naa ko def jóg ak naa ko def jariñu ci ak naa ko def jariñ ci du benn.
du ju benn
ceeb bu ñu wicc rek jox la nga di ko yëy pour añ ca ne ceeb bu ñu sabat wicc rek nga nga di ko yëy pour añ ak bu ñu togg ba mu ñor ba su demee ci sa estomac du la ca ak wàññi ceeb bu dara ñu togg ba mu ñor xomm ba su dem sa estomac boo ko lekk bi ngeen doon la wàññi dara Du ju du ju benn de du ñu nekk ko benn li nga bëgg a añ du ñu benn ceeb bu ñor xomm buñ togg du benn ci estomac bi du ñu benn du ñu benn
kon nag nee na kon nag yal nañu yàlla dimbali yàlla na yàlla dimbali rafetalal ñu suñu njullit te nangu rabetal sunu njullit te nangu yal na yàlla rafetalal ñu suñu taalube yàlla na yàlla rafetal sunu taalube
ñun ñi nga xam ne dañu aju ci Seyyidil Haaj Malik ak keneen ku aju feneen ñun ñu xam ne dañu ay Seydi Haaji Malik ak keneen ko aju feneen Seyyidil Haaj Malik waxul ne man rek ma fi Seydi sëriñ Haaji Malik newul ma rek maa fi sëriñ waxul ne ku ma toppul doo am dara waxuma ni waxul ni ku ma toppul du am dara ji waaye yaa koy seetal waaye sa yaa seetal sa bopp bopp ba mu doy ba mu doy gis naa lu bare bari na mais gis na nag moom lu bare bare bari ci suñu wàllu ñun ci sunu wàllu nun ñu ngi sañ loo xam ne lii ñu ngi sañ loo xam ne lii ak di dugg ci duggaay yu bari ak di dugg ci dugguwaay bu bari suñu sàgganee li ñu amoon ak as néew danañu rëcc suñu sàgganee li ñu amoon ak néew danañu rëcc ndax ku toogul fenn dara du la ndax fekk kat fenn toogul fenn dara du la fa fekk dara du la fekk fenn de
ku toogul fenn dara ku du la toogul fekk fenn fenn dara du la fekk fenn ñun ñu nañu doyloo li ñu jox nañu doy loolu li ñu jox nañu ñeme nañu ñeme jàng nan salaatu ñëwee faatiha jàng salaatu fatiha nañu góorgóorlu ci la nañ góorgóorlu ci yàlla si kenn ku nekk nga góorgóorlu jàng sa waxam kenn ku ne góorgóorlu jàng sa waxam te muusal sa mbokkum jullit ci sa lamiñ te nga wax muusa lu sa bon bu mbokkum ko def.
jullit sa lammi
ka nga xam ne ki sa mbokkum jullit a ngeen bokk baatub laa ilaha illa allah ka nga xam ne kii sa mbokkum jullite ngeen bokk baatu laa ilaha illa allah mu aju feneen mu aju feneen bul ayibal tariqaam bul ay ayibal tarixaam bu ko yëjji bu ko yéejji bu ko bu reetaan ko reetaan mbokkoo ko bokkoo ko mu bokkoo mu la mbokkoo la ngeen di ngeen dimbale di dimbalante su waxtu jëf su waxtu jotee su waxtu jotee jëf jotee kenn ku nekk kenn ku ne la la sa tariqa la la sam sa tarix sam nga def ko nga dem defi te nga jubóog te sa nga jubóog say bokk yépp
Eh, ñu ngi gërëm bokk yépp nee nag mi ngi gërëm bokk yépp ci mbooleem xeeti ndimbal yi nga xam ni yéen a ngi ko fi ci yéen mbooleem xeeti ndimbal yi nga xam ne yéen a ko fi indi ñi teew ci jumaa ji ñi teew ci jumaa ji ñi teew ci Tiwaawan ak ñi teew ci Tiwaawan ak ñi fi nekk ak ñi ci newul kenn ku nekk la nga fi yónnee wala nga def ko ngir jëm yàlla gis nañu ko kenn ku nekk li nga fi yónnee woon wala nga def ko ngir jëm yàlla gis na ko neen loo fi joxe it loo fi joxe it la nga ca bëggoon ci yaatal ko ndax sa tuyaaba yaatu na la wóor ne kër Seydil Hadj Malick def nañu la nga bëggoon ci yaatal ngir se ngir sa tuyaaba yaatu xamal ni seen kër si xaj maa gi ko jox def nañu ko yónneegu leen fi dara ci famille Seydil Hadj Malick yónneegu leen fi dara ci faru Seydi Xaaji Maalik ñu ubbi magasin Ñu ubbi xool ko magasin.
reetaan ree ree kontaan kontaan demel leen jaayal ma ko ma def ko xaalis di def ci jaay sama leen ba ko def ko xaalis def son poche jariñoo Déedéet.
mbaa bu xaalis nga jariñoo ko yëpp dara amul bopp. kër Seydil Hadj Malick kër si xaj maa gi defuñu loolu lu fi ñëw lu fi ñëw ñëpp a ko bokk jallooy ko ci jaam yàlla ñépp ko bokk te kenn du wax ne kër Seydil Hadj Malick bañ leen joxe nangam ci seen njaboot rek lañ ko te yemale kenn du wax ne Seydi Xaaji Maalik kat këram ba ñu leen joxe nangam seen njaboot rek lañ ko yemale lu fi lu fi ñëw ñëpp fay ñëw ñoom ñépp ko bokk ba mel na sa sax waru gar la léegi ci ñun sañatuñ ba ko mel bañ ni sax loolu dem nañ cee dem ba mu mel ni waru gaal ak yow sañatuñ koo bañ
muy gàmm muy gàmmu geeg muy koor gi koor geeg muy leneen lu fi leneen lu fi dikk ak ci lu ñu yëg ci lu ñu yëg ak lu ñu ak yëgul lu ñu yëgul te jaami yàlla yi di ko fi te indi jaami yàlla yi di ko fi indi ngir yaakaar kër Seydil Hadji ngir Malick yaakaar ko Seydi Xaaji Maalik bëgg ngërëmal lu yàlla gërëmal yàlla ak tuyaaba ak ju ba yaatu ju yaatu nañu xam ne nañu xam ni la ñu bëggoon lañu bëggoon yàlla yàlla defal na leen ko jëppal na leen ko jaarale ko jaarale ko ci njabootu ci Seydil Hadji njabootu Xaaji Malick Maalik ci lañu jox waaye jariñoo wuñu ko waaye jëriñoo wuñu ko moo ci jaami ba yàlla ci jaami yàlla
kon ameel nañ leen kon ngërëm ñooñu ñooñu fi joxe seen alal amee lañ leen gërëm ñu ngi gërëm it kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla teg adduna bi ci seen loxo mais ñu ngi gërëm it kilifa yi ay yàlla teg àdduna ci seen loxo ci seen taxawaay yi nga xam ne bésu diine su xewee ñu ñëw fa ci taxaw seen taxawaay yi nga xam ne yi bésu biir bi dikkee bu xewee ñu dikk fa taxaw seen taxawaay yu rafet lu ñu mën def ko lu ci ñu mën ci def ko fa di gërëm bokki taalibe yi ci di seen gërëm taxawaay bokk taal bi seen taxawaay di gërëm xarit yi ci seen di gërëm taxawaay xarit seen taxawaay ñi bokk ak ñun tariqa bi ak ñi ko bokkul ak ñun ñi bokk ak ñun tere xewe gi ko bokkal ak ñun ñëpp su dara su xewee dara xewee kenn ku nekk defe ne yaa war a gàddu lépp kenn ku ne defe ni yaa war a gàddu lépp def ca loo def man sa loo mën ak loo ak man loo mënul gis nañ ko gis nañu ko ñu ngi ñu lay ngi sant lay sant yal na la yàlla yàlla na la yàlla fay yiw ba ci ganaar ba ci ganaar ba ci mat ba ci mat ba ci xorom ba ci xorom lépp lu fi indi waay indi rek yàlla na ko yàlla yu jox tuyaaba yu ëpp yaakaar yal nañu yàlla fayal sallallahu yàlla na alayhi yàlla fee sallallahu alayhi wa sallam wa sallam yal nañu yàlla fayal Cheikhuna yàlla na Tidiane yàlla fee Cheikhuna Tidiane yal nañu yàlla fayal Cheikh Al Hadj Omar yàlla na yàlla fee Cheikh El Hadj Omar Cheikh Mouhamed Cheikh El Ghali Mamadou Ghali Maam Alfa Maam Mayor Alfahima Yoro Seydi El Hadj Seydi Malick Hadji Malick Seydi Seydi Aboubacar Aboubacar Sy Serigne Mansour Serigne Mansour Sy ak njaboot ak bi yëpp njaboot gi yëpp yal nañu leen yàlla yàlla na fayal leen yàlla feel di di jaay jaay Rasulillah rasulillahi Sallallahu sallallahu alayhi wa sallam te lépp te lu ñu lépp am yal nañ ko bokk ak lu ñu ñoom am yàlla nañ ko bokk ak ñoom ñu nit lu ñu ñu am ci ñoom yal nañ ko bokk ak ñoom ñoom yàlla nañ ko bokk ak yéen di jaay Rasul sallallahu alayhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk yaa xam la nga kenn ku bëgg ne yaa xam la nga bëgg sa diggante ak sa sa borom digganteeg sa borom ci yiwu adduna ci yiwu adduna yal na la ko yàlla jox te mu bañ a ànd ak benn yàlla coono na ko yàlla jox te mu bañ a ànd ak benn coono bañ a ànd ak benn rek bañ a ànd ak benn rek la la nga ragal la nga ragal yal na nga ca mucc yàlla nañ ko mucc yàgg sa njaboot yàgg sa njaboot ak sa ak dëkk sa dëkk ci ci lu dul mu bañ a ànd ak te benn lu fitna mu bañ a ànd ak benn fit yal na bu yàlla def gàmm gi muy suñu mujj yàlla bu gàmm yàlla def gàmm gi muy muy suñu mujj gàmm yal nañ yàlla may wér yàlla na yàlla may wér fan yu fan yu gudd gudd mujj gu muy rafet ko rafet musal ñu ci gàtt suñu fan ci gàtt fan deew deew mbette mbetteel sattetu xal sëttul xal bi pexe noonu fexe noonu ak njabar ak njabar lépp loo xam ne lii lépp loo xam ne lii doomu aadama mën na ca faggu ci xelum boppam ak xam-xamam doomu aadama mën na caa sàmm ci xelum boppam ak xam-xamam wala keneen ku mu lëkkool muy xariinam wala keneen ku mu lëkkool muy xarinam ci seytaane ci yi seytaane yi wala jinne wala yi jinne yi ba lor man ca am yàlla man ca am bu gaañ jullit bu gaañu ab jullit fu ñu ko paree buñ ko paree Yal na ko yàlla yàq.
yàlla ko yàlla yàq
bu leen luy jëriñ bu leen luy jëriñ te ñu préparé ko dañu préparé ko yal na ko yàlla yaatal yàlla ko yàlla yàqal te ñëpp bokk te ñépp bokk ak njëriñ ak njëriñ mucc ga yal na ci kër yonent bi mucc jiitu googu nu yàlla ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu ak njabootam ak njabootam.
kër Cheikhouna kër Cheikhouna Tidiane Tidiane kër Seydil Hadji kër Seydi Malick Hadji Malick kilifay tariqa kilifay bi yëpp tariqa bi yëpp ak jullit ak yëpp jullit yëpp ak kilifay lislaam yëpp islam bi yëpp ca mucc ga ca mucc ga ak njëriñ ak njëriñ la Yàlla na yàlla na demee noonu la ñu allahumma ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen baalu di xaq leen baal di leen baalu ah di leen dénk suñu di leen dénk boppam bopp bu leen
أيها الإخوان الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi di jiital ci nuyu bi ki nga xam ne moo di Habib Thiam ki nga xam ne mooy wazirul awal ak wisaraa yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom ak ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci rijalu dawla ak général ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bés bii nga xam ne ñun ak yéen ak jullit yëpp ñoo ko bokk fi masariqil ardi wa magharibiha ñu ngi leen nuyu suñu xarit suñu mbokk ak Cheikh Abdul Monahim Zeyd ak ñi nga xam ne ñu ngi àndandoo ak moom ñu ngi nuyu suñu xarit suñu soppe ki nga xam ne moo di safirul iraq ak kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo nekk di ànd ak moom pour jàppale ci ñu ci bés bu mag bi ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci député yi ak préfet yi ak seen sous-préfet ak gouverneur yi ak commissaire yi ñu ngi leen di nuyu ñu ñu bokkal région bi ak ñu ñu ko bokkalul ñu nuyu Medoune Fall yi nga xam ne moo amee intérieur di nuyu Fadilou Kane di nuyu Ousmane Seck di nuyu hein? ak ak sëñ Moussa Abdoul Aziz ah François Bob di nuyu Abdoul Aziz di nuyu suñu jarbaat Caroline Faye ak mboolem mbokk yi ci kaw kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi taxaw di jottali camitu famille Seydi El Hadj Malick ak seen nuyu jëme ko ci yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla daanaka man ci buntu kër Seydi El Hadj Malick ci laa nekk nekkuma ci biir kër gi lan laa fi nekk war a toog ci buntu kër gi di fay gan ñi ak di yëgle seenu dikk ci ki nga xam ne ki mooy borom kër gi kon ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu Serigne Habib moom itam mi ngi leen mi ngi leen di nuyu dafa am lu ko teq ba tax na ñëw nda ñun kenn ku ci dikk rek doy na jëkk ba nañu wax ak yéen dara ñu ngi sant suñu mbokk di suñu rak di suñu xarit ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci taxawaayam bu rafet ci bés bu mel ni su ma saa jot ba bésub tey lépp loo xam ne li moo war ci diggante nit ak mbokkam ak xarit ak xaritam ak nit ak magam def na ko ci ñaari wàll yëpp kon ñu ngi koy sant loolu akbaru dalilin mooy tegtal bi nga xam ne moo gën a mag te nit ñi li ñu defee nekkul te li ñu bëgg du nekk feeg man maa ngi fii di dund insha allahu taala maa di puso yàlla bi nga xam ne fas na yéene taxaw lu ñu bëgg a fàtt ci lislaam bi ma daal te loolu su ba ko waxee yéen ñë war ngeen ko gëm yàlla jaral na ma loolu danañu tudd faiblesse feebal caractère amul bopp waaye li ngeen di bëgg yéen ci yàlla ak li ma bëgg marchandise bi ngeen bëgg ci yàlla ak li ma bëgg du benn yéen ay sarax ngeen di jënd li ngeen bëgg man nag li ma bëgg ci yàlla loolu du ma du ma ko may moo di wàcc ci suuf lu ma gis ba yàq nga taxaw ci defal ñun ñëpp loolu moo di suñu sol gannaaw bi it dale ca président yi fi jëkkoon a nekk te yàlla atte léegi mu tële ba bàyyi teg ci Abdou Diouf ak ñi mu fi nekkaloon ak yéen ci seen bopp mu di xarit ci am ak kilifa ñi nga àndal ñu ngi leen di sant gis nañu seen taxawaay ak seen i ndimbal ak ndox ak dund ak yëpp loo xam ne ni def ngeen ko ngir dimbale ñu ko pour ñu terale ko gan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ko suñu loxo ñu ngi lay ñaan ni ngeen ko yëge su ngeen demee ngeen wax ko Abdou Diouf ne kontaan nañu yàlla na bu leen tëlee def lépp loo xam ne ni ba ngeen ko def ci wàllu yàlla ak jaami yàlla yi loolu ci la lépp nekk te moo di li nga xam ne sëriñ Cheikh wax na ko def ko abrégé rek waaye wax ju yaatu la ma ne ci déggee lu bari li ci def ñu di ko wax moo di li sëriñ Cheikh wax ci waxam ñu gën ko élargir amu leen lu dul ñun ñun amuñu lu dul yéen nit du kontar boppam nit du fatfat di jam boppam gouvernement lañu lan lañu wax du gouvernement Sénégal lañu wax est-ce que ñun bokkuñu ci Sénégal naka nit di ñàkkee bopp wala muy seetaan koo xam ne kii gaal gi mu nekk amul geneen gudul moom ci ci la biyam yépp nekk ak famiyam mu janloog nit mu ne daf koy tortillé mu ànd cag moom mënul nekk ndax assafid ak al mulku wal mujtamaau wal diinu wal usra ka safina wa safinatu in lam yakun laha qayimun aw kaana laha wa lam yaqum bi masalixiha yusiku an taxriqa aw tankasir société bu mu doon famille bu mu mën a doon ak diine ak gouvernement bu mu mën a doon nee nañu bato la il faut ma capture loncour bu ci nekk su ko amee ba noppi te capitaine bi ne yàccit ñaari yëf rek kay mën a am gaal gi dal ci la sawire wala la ma yoboon yëpp ji yal na yàlla mu kër ci loolu dañ bëggal lu ñu loolu Sénégal kon ni ko ko sëriñ Cheikh waxe ñun ñëpp kenn ku nekk am nga wàll ci Sénégal nañu takku bàyyi boolente bi bàyyi waxante lu ñaaw bàyyi njort yu ñaaw ci suñu bopp nañu rafet njort ci suñu digganteeg suñu borom rafet njort ci suñuy diggante suñu kànd mën a neex laa tanaaza'u fa tafsalu wa tadhaba riixukum waatasimu bi xablillahi jamiican wala tafarraqu sharaca lakum min addiini maa wasay bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayka maa wasaynaa bihi ibrahima wa muuse wa ciise an aqimu ddiina wala tatafarraqu fii suñu borom ne bu leen def tiraillement su ngeen defee tiraillement da ngeen def échec su ngeen defee échec da ngeen perdre seen i biens yi nga xam suñu borom defoon nañu sutura même ñi nga xam ne bokkuñu woon ci l'islam bi ñu ngi koy gëstu di ci tab bi ak di jox l'islam li mu moom di jox suñu prophète li mu moom mu di sallallahu alayhi wa sallam kon jullit yi nga xam ne ñun yàlla baaxe nañ binduñu te waru jox ñu xel te waru jox ñu wér te waru di ñu wattu guddeeg bëccëg te waru fexe ba def ñu ñu di jullit gëm ko nangu ko ne mooy suñu buur te waru ko kon war nañu delloo yàlla njukkal nan lañ koy delloo moo di ñu taxaw suñu diine taxawante ci suñu bopp yërëmante te bàyyi teqali ko xeet xeet tariqa yi lislaam a ko kuwaate nit bu tëddee ci bàmmeel ba ñu def suuloon dox ñeen fukki jéego malaaka yi ñëw duñ ko wax ne ko ban tariqa nga ne wa ma diinuka wa ma kitaabuka man rabbuka wa man nabiyuka kan mooy sa yonent lanay sa téere lanay sa diine kan mooy sa borom soo tontoo ko tontu la jub fa yàlla tarixa nga ca biir loola su loola yàqoo tarixa amul fu mu teg banqaas bu mën a am mukk te dartaabu yi ci def jaaxaar nekk la bala ñoo xeexante di tojante bopp kenn ku ne góorgóorlu ci service bi nga xam ne yàlla moo ko gàll ci sa loos nga fexe ba def ko naka yàlla bëgg te bañ ko def yow nañ ko bëgg su loolu amee su dëggoo rek xol yi dana laab ñu bëggante waaye boo xamee ne sëriñ si dañuy xeex fii kenn ku nekk say taalibe di la yëkkati di daane sa morom nga kontaan ca jaaduwul politiciens yi bu fekkee ne am nañu boole seen bopp nekk benn xanaa kenn ku nekk dina ko sabab dina daane sa morom gouvernement bi nu mu taxaw taxaw di ko yàlla ñu ànd ñoom la moo ci ñoom la taw pour jumbal leen Seydou Xañ May dafa daan wax ne Malick kat kenn la mën a wattu réer te du waaye reer fab ka tànk mari mën lu ko dara reer fab ka tànk mën lu ma ko dara kon nag yàlla nañu yàlla dimbale boole xol yi dimbale kilifay lislaam bi teg leen ci siraatal mustaqim ñu fab seeni nas ak seeni sëriñ teg ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ñu bane yàllaa ngi ñu teeri teeri bu rafet te bañ di teeri xuloo ndax am na collaborateur boo xam ne ëllëg noonu lay juri al axillau yawma idin baaduhum li baadin aduwun illa almuttaqin kooku yàllaa ko wax xam ngeen ko bu baax am na amitié goo xam ne gi ëllëg ak noonu lay noone lay noone lay soppiku lu dul ñi nga xam ne dañu àndoon ci ragal yàlla bennoo bàyyi li yàlla tere nekk ci li mu bëgg te itam son borom ñu ci ay nit ñoo xam ne dañu àndoon fii ci àdduna ndeke ànd ba du dëgg ci seen diggante ñu dem ba ca kanamu yàlla di fa xuloo son borom ne leen la taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'iid maa yubaddalu qawlu ladayya wa maa ana bi zallamin lil abid kii du bésu xuloo tey wax naa ba noppi te lii waxoon naa leen ko te man sama wax kenn ko jël ba wéy na kon nag yàlla yàlla boole xol yi te itam xadis ñu ngi lay di ñaan ngeen nga wax ko pré nga wax ko président kilifa ñi ngeen def ci bopp réew mi ñu di leen jàppale ñi leen di lëjal di damm seen loxo di leen def looloo xam ne di jàdduwul da ngeen di wax président carrément yéen ñëpp ngeen bokk ci taxaw kenn ku nekk fa mu nekk ngeen jox ko baat bu wóor kenn bañ a damm loxoom ak di yàq la muy lëg